asalaamaaleykum chers amis internet de la Sen Tech Média ci nekk ci ñu leen nuyu di leen ziar seen wàccuwaay baax baax cat ba ñu kenn ñu leen di baalu àq te di leen baal tey na ku gis niñ toogee xam ne dañoo béele na dañoo takku ba ah. li nga xamante ne ni mooy seen émission néegu sëy ànd ceeg waa Fallou Cuuraay sëñ bi maa lay nuyu yee soxna si lay fay tur bi naka la Mala MC aka Serigne Ndakaaru <coughs> Serigne Ndakaaru ma bàyyi la nga nuyonte sama mbokk internet yi mbokki seen teg média yi maa leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di leen di nuyu di fekk kenn ku ne fi nga toog mën naa la jëb loxo naa la asalaamaaleykum. ñoom ñu ngi lay fay ak sa bi yow maa ngi lay nuyu di la ziyaare. fii la ëppee ñu ngi lay delloo bu baax baax baax. tur bi naka la. Kawsara xaritu jeeg ji. Kawsara xaritu jeeg ji. waaw borom réew mi. <laughs> ayca borom réew mi ak MC laa toog ak nii ah tey nag ñoom ñoo ñu fas yéene décortiquer li nga xamante ni moom la jeeg pur sang nag borom deret yu tàngee di utiliser seen biir néegu sëy di ko bégalee seen borom kër xale yu góor yi di ko laaj ngir mën a bég ah. ay ci sëñ bi mu bëggoon xam réellement jéeg pur naka la war a mën a comporté woo ci néegu sëyam. Sega wolof Njaay dafa am lu mu wax lu am solo nee na xale day teel a yeewu bu bëggee for sa poot yi. waaw yalul ci loolu nga ne. wolof Njaay xale day teel a yeewu bu bëggee for sa poot waaw mais boo naajee yeewul après da ngay fekk sa poot bi xale yi for ko waaw mooy sax jéeg dafa war a joŋee dafa war a bari bagage dafa war a dafa war a salte mhm. mooy tax jëkkëram nopp ko yee waru am kersa non non bokkul si loolu bokkul si jigéen jigéen moo ñaale wuñ ko mu am kersa jigéen dafa war a woyof jigéen dafa war a ñàkk jom ci biir néegu sëy laa a wax mhm. waaw nekk jéegu kaw lal jéegu biir néeg jéegu fu ne laa wax jéegu nu ne nangu parce que mag ji dañ doon taamu ci jigéen loolu dañ doon taamu jigéen yu nangu mais par rapport jigéen léegi ak yu dem bi dañoo am différence mhm. yu njekki ñoo gënoon nangu que yu léegi parce que yu léegi complicité gi dafa bëri daa am loo xam ne dañ koy jombaloo ak lu ñu warloo mhm. mais sariya daf la may ne la sa bu la jigéen bi boo ko takkee ci farata yàlla suuna moomet mhm. lépp lew na la ci moom ba mu des ngeen sëyee ci gannaaw mhm. comprendre nga léegi nag comme l'islam moo daganal lool te moo gën a bëgg lu baax moo gën a bëgg lu yiw asikaama njaay yow mi nga xam naa ne da war a pratiquer góor bu defee ci yow xaalis mhm. xam bay say morom jël la ne yow rek mhm. bu la àndee kanam da nga war def loo xam ne daf koy jomal def loo xam ne li maanaam su génnee rek doxi mhm. di xugaleku naan ay biig ma def ay nii nii yooyu ci luy neex góor daal yee da ngeen di vanté wu daal xale yu góor yi dañuy vanté wu di naan démb li ma madame defal xaritu jéeg ji waaw ma bëggoon xam yow jéeg bu fi ñëw bésu samedi comme ni ñu koy defee samedi moom ñëpp xam nañ ne moom marié yee ko moom ñëw ne la genre tey anniversaire de mariage la la nga koy digal mu waaw ñun moom dañoo pare ci côté bépp fii la Fallou Cuuraay. Mm-hmm. maam ñun moom boo ñëwee fii am dañ lay liir d'abord xool li nga bëgg. boo ñëwee am na loos am na ci suuf am na ci côté bi mais bu dee jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg ay gens comme bigal seen jëkkër wala toppatoo seen jëkkër dafa am fu leen di dugal spécial ci biir boutique bi tamit booy jënd en gros am fu ñu lay yéegal. Mm-hmm. léegi comme jigéen ñi nga ñoom dañu fi ñëw samedi pour préparer. ak seen jëkkër. Mhm. am na uniquement fu ñuy dugg mooy ruqu jeeg ji fii lañ ko tuddee mu ngi ci suuf. Mhm. yow da nekk si kaw. Mhm. boo ñëwee dinañ la tegal arsenal yëpp. expliquer la li fi nekk yëpp. jàppale la tamit ci conseil ñu ni ñuy doxee boobu ñun waa bitigu Fallou Cuuraay. di lan la jàppale si conseil sa néegu sëy yaa ngi dégg tegal la lépp lu ñu la war a tegal jaale li nga xam ne dina bégal sa jëkkër. jaale li nga xam ne dina la dimbali tamit ci sa néegu sëy waaw oyofal ndax dañ fi am benn patron boo xam ne moom bu ñuy jaay moom du toog. Mhm. day ñëw xam nga dugg si te alors que mënoon na ko si bañ a fekk. pour ñu wax la fii Fallou Cuuraay nu muy doxee. Mhm. dina ñëw tooñ la kaf la ak daraja bu ko ti yàlla mënti dénk moom moom du gis loolu moom day ñëw kaf ree sàmb la mhm. conseil la xam nga parce que moom tamit li mu lay conseil noonu lu dëggu la si moom. ndax moom du xale. te en plus moo la jiitu si néegu sëy kon bu la conseillé di nga ko war a mën a xam nga. accepté gëm ko. loolu daal mooy Fallou Cuuraay fii. li fi nekk tamit bari na waaw. ci léegi-léegi dinañ xuus jàll léegi ma bëggoon xam MC yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci job bi di ci nekk est ce que yéen jigéen mën na leen satisfaire parce que lépp xam ngeen ko. bi loolu maanaam tey li ngay li kii boo déggee bu dee ñi jàng dañuy xam oral dafa am ñun li ñuy def nii mooy oral mais bokkul ak application li ñuy appliqué bokkul ak li ñuy oral. technique ngeen di def waaye pratiqué wala. kii kii gën a neex a mhm. mooy ki nga xamante ni xamul foo génn mën koo joomal. mais nga xamante ni moo lay wax est-ce que doo def lii est-ce que bu yàggee pour nga jommal ko sax day mujjee jafe ah dina compliqué de parce que client yi sama dañ lay wax loolu dañuy ñëw naan yéen jabar lañ la a def ba ba leen lan la a def pour mais mhm. Seydou affaire de jommalaate kase mhm. nit nga kaa woon mbaax mën nga kaa woon yarute mu mu la jox cër ke ne woon yeneen bagage mais yéen ku baax yaru tamit amul ay affaire di leen di ci kaw lal bi di yéeg seen kaw di wàcc doo ko faale de waaw mais déggoo ma rek nit bu ne ak lu la mën ñu satisfaire ci yaru te ak mbaax ak toppatoo ñu parce que ñun toppatoo lañ gën a soxla comprendre nga ñu wàcc nga defaral ñu ñu sangu affaire yi reer affaire yooyu noonu parce que dañuy wàcc coono dañuy nekk liggéey yëndu <coughs> conseil ñu jox nit ñi bu ñu wàccee nag ku dalal suñu xel la ñuy gën a bëgg mais yéen seen soxna yi daa mel du ñu ñëw jënd de yéenay jël di yóbbu. ah mais man moom man sax samedi bu ma dama yóbbaale. mais man loolu question boobu li ma jaaxal la tout le temps damay gis marié samedi bu jotee ku ci nekk naa damay waajal sama bopp damay takku nag ba mel ni ay saxaw du ñu mayee dara lu waral loolu. waaw bëgg lu baax rek xam nga góor ñi moom dañoo bëri te wuute. Mhm. góor sax man dama lay wax ne benn affaire jamono ji lii di arsenal yi maanaam foog ñuy xam ne tamit maanaam réew mi dafa am affaire de dépassement maanaam ñun suñu yaay ni ñu doon sëyee ak actuellement nii jeunes yu jigéen ñi ñoom ni ñuy sëyee bokkul foog ñu nangul leen ko. Mhm. du affaire da yàqute du affaire da ñoom dañoo virgère wala dara. non yàqute la nag yàqute la d'accord ma de réew mi moo am lu muy laaj réew mi moo am lu muy doxee. Mhm. fi mu ne nii yow jigéen dañ lay fekk si fi nga war a nekk. takk la ci farataas yàlla sunna si Muhammad dañuy wax de n'est-ce pas. Mhm. maanaam nga rafet jongo ma mel ni nga war a mel. ci man pour sama gis-gis ko waa laay waxee. xam nga mais yow dangay def tous les efforts maanaam pour sa jëkkër di nangu di la di la di la xaw ma nu ma ko mën a waxee. Mhm. mais chaque jour yow doo gis résultat. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. man loolu daf may jaaxal mais tamit boo ñëwee fii yow si Fallou Cuuraay fii nii nii nii. actuellement nii jigéen bu si bëgg kontaan wala nga bëgg a bég wala nga bëgg a bégal sa jëkkër wala nga bëgg moom mu kontaan. fokk nga ñemee jamono ji ay arsenal ay bagage maanaam tey jii ni say moroomu jigéen yi di doxee rek yow doxeel noonu. boo demee ci réew yaa ngi dégg tey jii man exemple ni ma la ko mënee joxe exemple man tey jii bu ma tukki woon ma dem France tey jii bu ma bëggee réussir damay fekk ñi nga xam ne dañoo réussir ni ñu def ba réussir man noonu laay def ba réussir. mais tey jii yaa ngi sëy si sigar yaa ngi fekk jigéen ñi. da ngaa rafetal wax ji da nga bëggoon wax boo demee ci réew fekk ñëpp def def taatu neen dee taatu neen day jariñe déggoo wax ji de bu dee taatu neen def ko day jariñe uh-huh. man daf may jaral ma def taatu neen tey jii sëy si nga yaa ngi gis xale yi bu ñu xëyee ñoom ñëpp a ngi bàbbeeku daw fàllu cuuraay fàllu cuuraay fàllu cuuraay mm-hmm. mais yow war ngaa sob nga ne fàllu cuuraay mm-hmm. si fàllu cuuraay toog boo ñëwee di nga fa fekk ay éléments yu dangereux c'est pas l'appel que ñuy fii nii mm-hmm. mais Baay li fi nekk kenn du ko wax kenn place baa ngi nii waaw dama lay bàyyi ndax dama gis fi affaire yoo xamante ni daal xaw ma ko xam dama dib gone tamit <laughs> waaw ma gis fi ay affaire yuy tàkk di fay yii di mel ni ay genre paillette te man paillette ci tissu laa ko woon sa say def ko xam mbubu wala robe. non lii ay ser la. Hmm. ay ser parce que tamit maanaam li ñuy jël ci tubaab bi dafa bëri li ñuy copier ci tubaab bi dafa bëri. Hmm. ay nuisette affaire yeneen affaire yi loolu yëfi tubaab la loolu tubaab bi moo ko moom mhm. te kenn ku ne nag da ngay jël li nga xam ne lii mooy sa culture nga jéem koo développé jéem koo yóbbu mhm. fu ne mhm. tey jii lii ay tubaab dañ fiy ñëw sax di o jënd pour mën a def wadu seet rek ay laal ay seeni feri cristal moo xam bu sew bi la moo xam bu dijj bi pour mën a jëmal seeni borom kër après nag yow tamit boo jëlee yëfi tubaab bi di ko copier di sol ay nuisette tamit loolu noonu yëf nga jël comprendre nga moo waral fàllu cuuraay dafa kër yi ay ser ser ci bindin yoo xam ne yi boo bëggee ñu defal la ci bu la neexee sax ñu bindal la doo fi nelawe tey comprendre nga. fi nelawewul tamit kaa bi day mujjee critique de mais dama gis fii nii benn benn boo xamante ni rouge la. bëggoon xam tey boo koy assortir ak ay fer yan couleur ngeen koy boole. Mm-hmm. mais rouge kenn du ko jël def yu rouge plus rouge. égal rouge waaw loolu da loolu loolu du kase. Mm-hmm. mais da ngay laal doore bii nii par exemple tey da ngay jël bu doore bii. Mm-hmm. Mm-hmm. laal bu fekkente ne am na couleur noir nga laal ci noir wala blanc lii boo ko defee nii ba laal ta jaagar jaagar ci biir kër gi da ngay jomal waaj. mais dama tàmmali gis jeeg ji. Mm-hmm. bu ñu defee seen sër laal seen fer dañ ciy teg petit talon loolu lan la ciy signifié. ah mais tamit dañuy bëgg a daagu xam nga tey jongo ma ñu ngi koy xamee ci bu daagoo dem dikk. dëgg la waaw ci ngay xamee jongo ma pire ak bu deuxième mai bi. ay <laughs> dama bëgg nag nga ma li nga xamante ne mooy feru yendukaay ak yi nga xamante ne moom la ñuy fanaanoo. waa fer yi moom bu fekkee yu digg yi loolu dafa diis ci ndigg kenn du ko mën a yendoo léegi nag bu fekkente ne da nga bëgg loo yendoo yii ngay daal di jël moo tax dañ koy paratal client yi bu ñëwee dama leen di laaj boo xam ceeb bu sew bi ngeen di jël wala ceeb bu digg bi ah, waaw bii mooy ceeb bu sew boobu mooy ceeb bu digg bi mhm. voilà bu dee ceeb bu sew bi di mooy yendukaay yii mooy sangoo piscine yii la xale yi takk ci seen ndigg yi mhm. des fois laal seen eau teg ko ci kaw ko ci kaw daal di jaagar jaagar ci mbedd bi bu ko defee xale yu góor yi gis leen affaire bi luminosité bi jàpp leen ñu commencé kontaan lii day feexal xol daal am na góor yàlla yu bëri lii moo leen di daaneel waaw mais man bokkuma si moom. ayca <laughs> dañuy gis d'habitude xale jigéen ñu bëree bëree bëri dañoo ñemee utiliser ay produits yoo xam ne mën na leen a gaañ. Mhm. yoo xam dañ koy dugal seen awra mu leen dugal juddal ay cancer de l'utérus et euh, consort produits yooyu yéen da ngeen koy jaay wala. nga ne. xale jigéen ñi nga xamante ni dañuy utiliser ay produits aphrodisiaques yoo xam dañ koy dugal seen awra mu leen di indil ay cancer de l'utérus juste pour bégal seen jëkkër mais c'est un critique. Mhm. maanaam li ma siy wax mooy daf si bëri ay façon daf si bëri ay façon yoo xam ne dafa différent mhm. Mhm. comme lu si mel ni boule brésilienne bii. lii ñëpp bi. bari na ay senteur tamit am na ay gold effet ay nangam nangam extra extra. comme lu ci mel ni mix glis bi tamit. xale yi jigéen ñi xam nañ ko. yaa ngi gis. mi ngi si glisse bi daa mel la. lubrifiant la en même temps moom c'est autre chose. li mu mën dafa bëri. effet mante lay joxe. effet mant bu doy waar bu yéeme. ànd ak poobar. Mhm. xorom poole mu ngi nii ñu bind fii waaw noonu la demee <laughs> mant poivré. <laughs> doy <laughs> noonu la demee bilaay. Ah, voilà ba tey ah léegi nag dama leen di bàyyi ngeen di ko tikkal ma bagage yi un à dama jël sama temps yéenay xool fu leen neex ngeen commencé ba fi ngeen di daanalee. waaw. léegi moom fi ñuy décortiquer fi ñuy commencé dañ koy boole ci appareil de massage ak mm. huile de massage yi xam nga tey par exemple loo gis ordre la quoi. Mm-hmm. bu fekkente ne da jëkk jékki rek laal bécco yi ne nii lañ koy defee loolu du am sens parce que ñun Fallou Cuuraay fii da nga fiy jëlee xam-xam. Mm-hmm. malgré que da am bagage bu normal de mais après da nga fiy jànge loo xam ne lii foo demee foo ko teree ñu ne ku la jàngal aay na. Mm-hmm. léegi dañuy jëkkee ci appareil de massage bi mhm. ku ne xam na ne nit bu liggéey jee ba wàcc boo ñibbi boo ko tànqalee ndox ba mu sangu ba pare mhm. massage nga ko war a a def waaw léegi dañ lay jaay huile de massage ak appareil de massage bii ngay gis nii mhm. lii nag am nañ ci benn secret boo xam ne bii tant ak huile boo ko massage sama nijaay lendemain six heures du matin lay yeewu tànq ndox sangu jël xale yóbbu leen ci jardin bi foo ak ñoom di mee ba yëkkati naa <laughs> fii moom maa la si wax loolu moom mais tant que ñëw ci Fallou Cuuraay duñu la jox secret bi bu fekkente nag sa livre mën nañ la mën la ñëw fii dañu lay wax secret live en direct nga taxaw ñu taxaw ñu la koy wax mhm. comprendre nga mhm. léegi buñ paree ci huile de bi lii ñëpp xam nañ ne frotté la ci jamonoy seddaay lañ nekk boo frotté wee frotté ice la moo nekk nii da ngay frotté ba mu tooy nga bàyyi sama nijaay noonu laxas ko du ngeen def dara journée blanche mais bii ni muy seddee tamit ni mu sedd noon noonu la baaxee si yax yi mu sportif bi footballeur bi basketteur bi ba ci mbër bi karateka yi yi baax na si ñoom bii. ak caméraman yi. caméraman yi def ñooñu ñoo gën a son waaye wax cadre neexut def di wëñaaru nii nii nii sa faar am problème. <laughs> léegi nag day baax boo amee madame wala xale bu nangu boo wàccee mu defal la ci bii. non non non pas xale bu nangu ah. xale bu nangu. waaw day am suite. parce que massage yi. xale bu góor boo ko defal du la bàyyi nga ñibbi sa kër yaay noonu. ah massage de dafa xaw a doy waar moom massage bu fekkente ne da ko defee góor gu am salaire gu mel ni sa waay mi ah damay xalaat mu song la de <laughs> waaw léegi buñ paree ci frotté bi dañuy jal ci kii bi ah si lii lii gel intime la. Mhm. waaw. lii la tubaab bi avant de manger il faut laver les mains loolu daa mel ni CI lañ la koy jàngal xaw ma CP mm-hmm. avant de manger il faut laver les mm-hmm. lii te jigéen maanaam léppam dafa dafa war di set góor da koy consommer léegi nag xale jigéen yi bii boo ñu paree ay règle wala guddi gi soir nga war a tëdd dangaa war a jël sa sel gel sili bi raxasoo ko ba set mm-hmm. daal di tëdd bii miel bi miel bi dañ koo composé waale ak cristal dafa saf mant pour ñii nga xam ne ñii ñooy kii daal Hmm. sucé affaire yooyu noonu. mais lan mooy sucé. sucé benn affaire la bu doy waar. mais Baay Faal auditeurs yi seetaan nekk ci néegu sey waxuma la ñuy sàcc yu def de ñu nekk ci néegu sey ñoom xam ne la mooy sucé Baay Faal xamoo loolu yow. la mooy sucé. sucé maanaam ni ma la ko mën a rafetalee si ñuy déglu sucé mooy màcc benn quelque chose nii. donc wax ju yegg. <laughs> léegi ñu paree ci boobu dañuy dem ci vivre anode mhm. vivre anode dafa nekk benn affaire boo xam ne bii genre élastique la quoi mhm. mais dafa yor pile ak batterie si biir mhm. soo contacté da ngay gis muy ni muy vivre di vivre di vivre bii si sexe ku góor ki lañ koy def dafa am góor yoo xam ne maanaam suñu suñu amee premier round pour ñu dem deuxième round dañuy xaw a day xaw a jël temps day diire léegi nag yow su fekkee danga nga bëgg mu defaat rapidement da ngay contact lii rek lonkal ko ko day jël tous les pointures mhm. sexe bi nu mën tool boo ko tawee nii boo lonkee day dugg mhm. après nga taal ko mu vivre day dem ba au ci kaw rek ci kaw rek nga koy def léegi buñ fa jógee dañuy dem ci bougie de massage lii bougie la mais bougie bi da ngay dindi toile bi soo mhm. dindiwee toile bi dafa am comme sondel ni mu mel mais da koy taal ak briquet wala allumette nga may ko quelques minutes da ngay gis ni mu nekkee ndox Mhm. après nga jël huile boobu noonu sotti ko ci yaram ku góor ki sa partenaire ba mu kii mhm. nga jël sa loxo yi ou sa appareil de massage bi nga am nga commencé koo masser mhm. lii mooy bougie de massage disponible c'est Fallou Cuuraay xame leen ko parce que Diouloubé duñu benn. dëgg la waaye la savon pour réservation. am nañu tamit crème parce que Fallou Cuuraay lépp lu mu lay jaay produit bu ñëwee sa bala nga kaa utiliser mën nga ko liir produit ñuy jaay yëpp amul benn lenn lu am effet secondaire produit ñu lay jaay ñun avant ñu koy jënd dañu koy bu ñu dañ leen wax ne ñun nañ ko dugal laboratoire ñu saytu ko boo xam mën na dem ci kanamu ku jigéen te du ko andil benn infection du ko andil benn problème parce que avant que tamit xaalis neex na mais ragal yàlla ci la bokk comprendre nga boo faalu curaay nekkul ñi nga xam ne dañuy jëg fee ay bagage rek jaxase jaxase mélangé xamuñu produit yi war a rek ñuy jaay non non ñun jëfewuñu noonu ñu koy saytu boo xam mën na nekk si kanamu nit du am déet léegi nii savon bi secte dafa am ci ñaari plateforme yu muy yu muy borom xam-xam yi xam nañ fi may waxe am ñoo xam ne pax bi mooy yaatu am ñoo xam ne lèvre bi mooy ubbeeku yee bu fekkente ne nag pax bi lèvre yi ñoo ubbeeku sabon bi moo koy refermer mhm. su fekkente ne ci pax bi la da ngay jël kii bi crée bi moom moo koy tëjaat mhm. comprendre nga mhm. yee buñ jógee foofu lii tàngal la kom tàngal yi xale yi jën ci boutique yi mais bii du tàngalu bëccëg bii tàngalu guddi la bii te du tàngal xale it. non bii du tàngal xale. Mhm. lii tàngalu mag la. Mhm. magoo nag bu bu am jëkkër bi waxuma la célibataire de bu am jëkkër bi moo koy maj parce que bii boo xamoo ci da ngay taxale ko sa sa xam na ci dara. <laughs> waaw Baye Fall na laa wax. dëgg la waaw waaw. Mhm. léegi bu ñu jógee foofu dañuy dem fii ci mus mousse de massage bi lii mousse crépitante bi moo nekk nii. bii bokk mousse bi moom dafa toj dëkk bi ah. parce que effet bi muy def ci yaram. Mhm. waxuma sax li muy def ci yex mais ci kaw der rek. waaw bii dafa doy waar. Mhm. bii dafa garaaw. Mhm. faal defal ni léegi bii nii rek ngay def. ci yaram yarami waaji daal di def nii maase waaw maase maase. mais après day mel ni day xel di vivre boo tegee sa loxo da ngay dégg ni muy def vibration bi def nii daal def nii noonu nag lay duggee si yaxi nit bi dugg ba si biir au fond waa bu xëyee ba sangu maanaam cawatement gi muy àndal loolu mooy waral su demee barabu liggéeykaayam mun a nekk en activité di dem di ñëw. Mhm. voilà léegi bu ñu fa jógee dañuy ñëw laal lii oftenga la bii. lii lii oftenga dafa am gel yoo xam ne seen règle dafa xaw a gudd. Mhm. bu ñuy gis règle day ñuy toog temps bu yàgg te du duñ pare. Mhm. te góor moment yi muy soxlawee boppam su ko amul rek mun naa dem feneen dem jéggaani ji ko wuti ko fa. léegi lii da ngay wut sa lubrifiant bu sedd nga sotti ci. ci ba mu tooy daal di jël kiiwu góor bi rek dugal di di di def nii di yëngal lii waxuma nag benn célibataire jël ko dem tëju neegam di ko def loolu baaxul. <laughs> da cay baax na ngay leeral de parce que xale yu góor yi daal dañoo dañoo doy waar. waaw waaw moo tax ma koy may def alerte nag damay bañ célibataire yi jël ko tëju seen neeg di ko def loolu baaxul. Mhm. waaw day buñ fa jógee dañuy dem ci lii gant massage. Mhm. maanaam lii bëri na xale jigéen yoo xam ne ñu ngi koy jël rek te xamuñu lii nii lan lay jëriñ. waaw parce que sànq ba léegi man maa xool mais amul daal benn effet bu ma ci xam. lii maanaam soo gisee ñu defar ko. sexy góor. Mhm. sexy góor maanaam tey bu fekkente ne da koy jàpp ak sa loxo nii di ko raay. Mhm. sexy bu bu toll woon nii dina dem ba nii lay toll parce que loxo dafa am tooke da ngay gis sax kanam soo koy laal nii lu bëri da ngay gis sax kanam day am ay bouton parce que. tooke bi nekk si loxo yi mooy wàcc fii sa kanam waral muy def ay bouton mhm. moo waral ñu defar lii tubaab bi defar lii mhm. lii lubrifiant ngay jël fii sotti ba mu tooy mhm. après sol ko comme comme sa sa loxo yi gis ngeen ko xale doon jàng temps école ci vache yi moo amee voies yi a cinq doigts mu ngi nii il a cinq doigts da nga koy sol après nga jàpp i bi di commencé manipuler di fo ah, ok lii pour sexe bi man dama foogoon pour pour colonne vertébrale bi la sax non non masse sexe moo tax a jóg bii parce que wax naa leen ko loxo loxo kenn du ko maasawee sexe boo ko defee mm-hmm. loolu dafa am tooke. Mm-hmm. dangar bi nekk si loxo yi day wàcc sexe bi bu toll woon nii dina dem woon nii lay toll. Mm-hmm. yee bu buñ fa jógee dañuy dem laal kii bi chocolat bi. lii chocolat la mook bii ñoo bokk même effet bi ñuy def. mais ya dafa am góor yoo xam ne tey duñ nangu seen jabar jox leen dara parce que réew mi dafa toj. des fois da ngay dem fekk jigéen defal la ay noob ay affaire yooyu noonu góor yi duñ nangu seen jabar préparé leen dara rek ñu jël ko lekk ko. Mm-hmm. mais lii fes festival la tudd wala. festival la tudd sokola yooyu mm-hmm. léegi lii nii day maye kattan góor yi nga xam ne dañoo am problème faible faiblesse sexuelle leen di may kattan mm-hmm. góor yi nga xam ne maanaam dañu teel a yëg seen bopp bii bu ñu koy jëlee dañuy dañu am lu ñu mel. day am bii tamit ni ñu koy utiliser. comme festival bi nii maanaam yaa ngi gis nii maanaam bu dee dafa nekk si paquet bi nii. mun na doon maanaam lu lay të pour nga jox sa jëkkër. Mhm. parce que lii di maye kàttan boo ko bëggee ñëw rek jox sa jëkkër ni c'est pas respect. Mhm. parce que moom nan la war a mel ba nga koy jox lu koy yokk kàttan non non comme bonbon zinaa yi xale yi di lekk rek. Mhm. yaa ngi mais soo dajee bii tegee ko nee. andi bii foo moom comme ni ñuy foowee ak jëkkër rek. chéri reer nga ba pare mbaa yaa ngi si jàmm affaire yi taaw la jeex na bébé la tamit moomin la mooy taaw jeex na jëkkër mooy taaw jabaram waaw kay mais xale yu jigéen yu bëri xamuñu si loolu maanaam góor tant que jàppee woo ko xale bu ndaw moomin ku xàmmeewul mhm. munoo nekk ak góor dëgg la lii ngay jël la sànni ko ko ne ko am lekkal bon bon la moom du si bàyyi xel waaw ah, jeex na yaa ngi dégg nii lay demee <laughs> yaa ngi xam boo ko sànnee nii moom du si bàyyi xel du si rendre compte tamit day lekk alors que am na effet bu mu def ci moom mooy waral après maanaam boo leen jaxasoowee da ngay yëg leneen lu li nga doon yëg yaa ngi comprendre lii day def loolu. bii daal lañ naan sama affaire bandi yi day def effet. waaw ah, mu ngoo la demee léegi bii mooy big boss big boss ko mën a woowee mooy confi yaa ngi gis. yaa ngi koy gis nii. mais nii la doyee waar emballage bu rafet bi noonu la yéemee maanaam da ngay bàyyi ba sa jëkkër reer ni ñu la ko mën a conseillé ni nga ko mën a utiliser. sa jëkkër bu réeree ba suur parce que góor tamit nañ leen si bàyyi dama leen di jox conseil yéen jigéen ñi maanaam góor balaa ngay jaxasotee ak moom dee ko bàyyi ba mu réer ba suur loolu dafa am importance ci néegu sëy maanaam dee ko bàyyi ba mu réer ba suur këll góor bu biiram deful dara maanaam li mu bëgg a def du ko mën ah, waaw jeex na surtout loolu kese la maanaam lii nii da ngay bàyyi ba mu réer ba pare mhm. nga xool li mu bëgg moom maanaam mhm. li mu bëgg si lu mel ni lu tàng muy tee wala meew wala moo xam lipton yooyu noonu mm-hmm. nga laal fii nii tuuti ci meel bi meel la tamit mm-hmm. nga laal si meel bi tuuti def ko si benn kaas boo xam dañ koy yemale rek jëngal ko jox ko mu naan mm-hmm. moom tamit day def effet bu baax si moom dina tax day durer am li jigéen ñi gën a bëgg lay def day tax day durer am mën na la mën ngeen jaxasoo temps bu yàgg te du yëg boppam man du daanu te jigéen ñi ñoom dañoo bëgg loolu jigéen ñi moom jamono ji loolu lépp la ñuy wër. dañoo bëgg lu métti daal. waaw ñoom dañoo bëgg loolu jamono ji góor boo xam ne maanaam da nga yambar sax dañ lay bàyyi ñun presque ñun clients yi gën a recevoir fii nii maanaam ñun ñun suñu liggéey mu ngi basé wu si clients yi ñoom lan lañ bëgg. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. Fallou Cuuraay moom dañuy liirloo maanaam ñun mooy suñu njaatige. mais day ñëw ci MC ne ko maanaam tey journée bi del bàyyi client yi xel li ñuy li lay laaj. Mhm. man mii tamit daf may dénk ne ma del bàyyi client yi xel li ñuy laaj. Mhm. léegi si loolu noonu ñoo ñuy recevoir clients yi ñu ñuy laaj nangam nangam am ngeen lii am ngeen si loolu la ñuy basé wu pour moom di ko wax moom bagage yan la mën a di indi. Mhm. léegi mooy moom ci loolu lay jaaree pour di xam man bagage la mën di indil askan wi. mais moom dafay nekk pour maanaam kenn du mer góor du mer. jigéen du mer mhm. xale du mer mag du mer fi mu ne nii ba ci célibataire yi nga xam ne ñoom amuñu jëkkër mhm. am nañ ay produits yoo xam ne mën nañ si di soulager wu ñoom sans autant que ñuy jaxasoo ak kenn. soulagement. billaahi soulagement wu neex doy waar parce que xol tamit organe la rek. xol dañ koy dundal. parce que du neex ci maanaam ci nit am na lu koy dundal. Mhm. maanaam ne nii warul sangu ba set doo yor comme teewu MC bi. la. foog ngay bomb ñàmpeeg saabu ba set wecc pour mën a am teint bi am seigneur dëgg la xamul leneen mhm. leneen loo gis tamit si nit am na leneen lu koy dundal xol moom lenn rek ko koy dundal muy maanaam mooy amour mhm. waaw amour moo koy dundal tamit sa partenaire di la jox temps tamit yow nga koy jox temps mhm. sa partenaire man li ma jàpp ne mooy tax mu jox la temps mooy nga koy miinal sa bopp di ko miinal sa yenn parti loolu kese laa gis. waaw parce que jigéen comme góor ku ci nekk war nga xam sa yaramu soxna nu mu mel. Mhm. wala sa yaramu borom kër nu mu mel ba bu ëllëgee ku la ne tâche bi sax nekk na ci moom. Mhm. war nga xam dëgg la wala du dëgg. waaw loolu d'accord naa see yow te tamit jigéen ñi ñoom ñuy def benn affaire. Mhm. parce que man tamit des fois damay waxtaan ak fii jigéen mais daf may wax loo xam ne maanaam damay xam ne kii nii nii conseil bi ma ko bëgg jox nii pour mu def ko. maanaam defu ko. musu def boog maanaam. mais si bu ko defee nii ba ñëwaat ci place bi man damay xam ne kii li ma ko ne def na ko maanaam jigéen ñi ñoom nañuy def benn façon maanaam nañuy faral di yeewu yaa ngi dégg mhm. maanaam xaaju guddi mhm. trois heures moo xam ne def jaxasoo nañ ba pare moo xam jaxasoo wuñ ba pare mhm. yeewu taj sa jëkkër mu toog nga toog yaa ngi dégg nga ne ko mais man chéri man boo ma yeggee fii damay kontaan soo ma defee lii damay kontaan soo ma jaaree fii damay kontaan léegi sa jëkkër yow maam di xam fi mu la war di jaar pour nga yëg bànneex. di xam li mu lay war a di defal pour nga yëg bànneex lu tax loolu jigéen ñi duñ ko def. mais yoon la nag loolu dafa war di am. parce que ku ci nekk am nga loo xamante ne loolu nga bëgg ñu la koy defal. jigéen ñi dañoo war a fexee xam loolu. mais du dangeen a war a bàyyi seen jëkkër yi rek. ñuy parce que góor tamit dafa xaw a yor ko gaynde góor bëggul defet. dëgg la yaa ngi dégg góor li mu xam mooy gaynde gaynde lu des fois am na ñoo xam ne dañuy bëgg a satisfaire seen jabar ba gaañ seen bopp. satisfaire sa jabar ngay bëgg yow ba gaañ sa mujjee gaañ sa bopp. Mhm. te loolu alors que maanaam jigéen bu dee mu ngi lay taaj maanaam man li ma jàpp ne jigéen moom la gën a soxla. Mhm. ñun li ñu lay wax nii rek nekkul loo xam ne dañ koo pratiquer. maanaam dafa am ku ñuy jàngal sexualité koo xam ne Fallou da koy fay. sa ngi dégg ñun ñuy jaay produit fii dafa am koo dañuy jàng sexualité koy fay par weer. dëgg la dégg li ma la wax. Mhm. waaw foog na tamit nit ñi di xam loolu. Mhm. xam na ñun maanaam maanaam xam-xam bi ñuy waxee nii pratiqué wuñ ko. Mhm. mais jigéen moom. war na fexee xam liy daaneel jëkkëram fexe tamit wax jëkkëram moom li koy daaneel ba moom chaque jour buñ jaxasoowee dina si jëlee bànneex jëkkëram jëlee si bànneex waaw loolu moom jigéen ñi. maa ngi leen koy maa ngi koy jox comme conseil ngeen koy it ngeen koy doxee daal. Mm-hmm. waaw loolu laa. ay ci sama mbokku jigéen ñi ñoo ko déggandoo nee na ngeen di wax seen borom kër yi fan lañ leen di jaar ba yegg leen laal seen lii gën a fragile de même yéen it ngeen xam ko ci xale yu góor yi ay ci ba tey ci décortiquement bi ah ay ci ñu avancé lan ngeen may yëkkati laatal. waaw bu ñu foofu dañuy dem ci fer parce que fer yi am na yoo xam ne genre dañ ko def comme mhm. gis nga bi sous forme de zip lañ ko liggéeyee. lii boo koy takk jar na woddu wala sol nuisette wala bu fekkente ne yaag alaaji kese ci biir kër gi. Mhm. yaakaar mu ne jar na ko daal. defal sa seen ni jaagar jaagar sa ñàkk joom mhm. mais d'habitude dafay ànd ak ay waaw am na soutien boo xam ne bii casqueton lay àndal. kii bi rek lay nëb. casqueton waaw casqueton bi. mi ngi mi Mhm. moom nga koy boole. pour ñi xamul te cela veut dire cus. waaw waaw waaw ah, <laughs> léegi bu ñu jógee ci boobu boobu biñ la woon léegi jupe bi la. Mhm. lii silip la. Mhm. bi moo nekk nii gis nga nii la forme bi nii la mel format bi. ni forme string la. waaw string moom ngay boole kas sa kasketon def sa jaagar jaagar ci biir kër gi. buñ foofu am na per yi. comme yii. yii moom nu mu tudd. ah yii mooy kii bi ceeb bu dijj bi. ceeb bu dijj bi. te lumineuse di nag. Mhm. lii bu courant coupé maanaam da ngay gis borom. dëgg mu feete. Mhm. waaw bu courant coupé xale bi day takk. Mhm. da koy gis fi mu feete carrément nga xam ne mu ngi el bare. nga daagu jubali. en man dafa am benn affaire boo xam ne dama ko remarqué ci seen fer. mooy élastique bi. oui. nga ma taal élastique bi s'il te plaît. voilà euh, Bamba gis nga élastique bi ni mu mel nii ah. bokkul ak yeneen élastique yi parce que d'habitude élastique yi ñuy nasee tout le temps bu laalee ndox day gajaf te day gaaw a dagg mhm. nit ñi ne dañoo taama di wax ay day toj gaa day toj xaw ma catak ñoomiñ seen mhm. mais fer dafa am nu ñu koy nasee mhm. bii mooy bu baax bi élastique bu baax bi mu ngi nii waaw c'est que loolu yëpp ci base bi la fii fàllu cuuraay lépp lu ñu lay jaay. Mhm. qualité lay doon. Mhm. xam nga tey Sénégalais dañuy jaawale qualité ak quantité. Mhm. am ñoo xam ne lu bëri la ñu bëgg. te du am benn valeur. am ñoo xam ne lu tuuti la ñuy bëgg te mu am valeur. fii nag boo ñëwee dañ bu ñu liiree kanamu client bi dañu xam ci ban genre la bokk ñoo xam fi ñu lay classé. boo xam ci ñu bëgg quantité bi nga bëgg wala ñu bëgg qualité bi. léegi itam fekkente ne da ngaa bëgg lu baax lañ lay jaay yëfi ndaanaan yëfi VIP loo xam ne ni koo ko jox wala boo fekkee nag ngaa utiliser maam yow sa xol day sedd mhm. wa fekkente nag yeneen bagage nga bëgg dañ la koy defaral parce que ñun boo fi ñëwee amuñu intérêt nga jóge fi dem di mer mhm. wala di di di di kii di def loo xam ne lii naka su dul noonu boo demee ne Fallou Cuuraay ña fa nekk mënuñu accueillir mënuñu loolu mhm. moo tax à chaque fois boo fi ñëwee tamit Fallou Cuuraay am na plateau Mhm. plateau yu am classe. plateau yu am classe li tubaab naan c'est du jamais bi fii rek nga ko mën a amee si faalu cuuraay gis nga ko. Mhm. mi ngi nii lii ngay gis nii benn exemple bi lañ fi ànd am na couleur bu ne am na doré am na argenté rouge façon boo si bëgg am na. Mhm. même tamit duñ koy décorer façon anam bu doy waar exemple comme nii. plateau yi dañ koy jël ñu décorer nii defal la sa trois pots pot cuuraay ñu jël benn ànd charbon wala électrique teg si kawam comprendre nga bi noonu dañ la koy jaay am na couleur boo bëgg gis nga ko nii waaw yii xam naa dina baax sa caméraman bi bu demee ma dem defaral ko si ay kii nii xaw ko jommal ah Baay Faal li nekk nii wóorut de. ci ginnaaw moom li may mooy leen rek waxu sëñ Mbay Jaxate bi laa di wax mooy donga nooyee ndawal duufa ci gën soxna su taaru te xol du ca wow la ñuy doxee xamal ne da wut nga nooyi yaa ngi dégg mhm. soxna tamit taaru moo ci gën te xol du ci wow mhm. yaa ngi dégg noonu la demee mhm. ah, amul leneen maanaam soxna yi nañ gën a góor góorlu gën a takk seen laxasaay maanaam di di di di toppatoo seen borom kër yi di góor góorgóorlu ci seen borom kër yi te xam na tamit fi mu ne nii jamono moo walbatiku yow xam nga loolu n'est-ce maanaam jëkkër doonatul lu facile fookat maanaam moo gën a yomb ko jëkkër jëkkër man pour man yombatut waaw dëgg fa yàlla soxna yi nañ gën a góorlu bañ a topp seen borom kër yi. te xam ne maanaam góor yàlla dafa am nu mu ko bindee. mooy moom waaw pour ma rafetal mais góor doyluwul. ñun ñëpp ñoo yem. Mhm. mais ñoom bu ñu leen di topp ci seen façon boobu ñu amee. Mhm. nañuy muñ toog kaasewu di def si seen i nekk seen waaw di topp seen i bëgg-bëgg waaw man loolu laay conseil bépp jigéen daal dëgg fa yàlla.